Mbengue Mboro ngi nii. xaar nga ko ba sonn. ñoo na wàccul ci oto bi def na lépp mais am na loo ma jot a dee ci làmb bi. lan nga koy wax. waaw maa ngi wax ginnaaw moo ma sant yàlla di julli ci bi di sant sama ñaari waajur waaw di nuyu waa Bawol gépp di nuyu waa Medina waa Raay ba waa Plateau yëpp di noy waa Parka waaw di wax ne gars yi ñu waaj combat bi. parce que lii sama premier combat laay bëre nii. sa premier combat sama premier combat laay bëre. li nga bëre ci làmb bari na bii mooy. li ma li ma bëre ci làmb bari na mais bii man maa ko jëlee sama bopp def ko sama premier combat. lu tax loolu parce que damaa bëgg a wane sama bop kii nga koy wane si kii laa koy wane. bu soobee yàlla kii nii. oui na day wane boppam de te ci yow la koy wane. auzu ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur gërëm sama papa sama yaay di gërëm ñi ma àndal ñëpp ñëw fi. di nuyu ñoon mineur elage laay chauffeur waaw laay sama kosu koto ñoom ñëpp maa nuyu ñi ma àndal ñëpp. waaw di nuyu ñi fi taxaw ñëpp di jégalu nag si tardement bi du si man. billaay yoon bee xat rek. di ko nuyu moom sama adversaire. Hmm. waaw damay sant yàlla ba mu ma bi mooy premier combat man bëreegu lu tax nga ne bëreegoo. ma de wax dëgg ci làmb yëpp. billaay bëreegu yi nga jot a laale yëpp. bëreegu ma. yéen ñaar lan mooy seen problème yéen ñaar. moo ko xam. lan mooy seen problème. kii kii kii amuñu problème. kii amuñu problème bu loolu weesoo damay noyu ñi ma àndal di noyu. di damay noyu ñi ma àndal di noyu Mbaye Aba. Hmm. waaw di di noyu sama papa mbay guy gi xam nga di noyu kii ñoom double moteur double moteur chaque jour moo may entraîné chaque guddi moo may téye di ma entraîné lu miti. Hmm. maa ngi koy sant di ko gërëm. waaw di noyu may Aba sama doom day waaw ñuy dama leen di noyu parce que lii nii lii nii lépp dañu si jaaraat léegi nii bu soobee yàlla. Hmm. dañuy ñëw jarul yàkkamti ndànk rek. maa ngi noyu ñi ma àndal ñëpp di noyu sama papa mbay guy gi kooku moom may jàppale mooy sama lépp maa ngi koy noyu di ñaanal ñëpp jàmm waaw di ko ñaanal jàmm ba jour ba kii amuñu benn problème. am ngeen problème kay lii suñu problème mooy sa premier combat ci loolu ma la wax lan lan mooy suñu problème ki ah. Hmm. lekk na sama avance ma lekk avance am. la man champion la maa ngi xaar arbitre bi soufflé gën suñu diggante ñun ñaar booy yi mu àndat nag ñu ngi wax di xaw di jéem di teg ay affaire hmm. mais kii bu ma ko jàppee nga xam ne. kii nii kii bu ma ko jàppee. kii nii. ay match nul yooyu ay combat yu yooyu yooyu nekkuma si ay joxe victoire arbitre bi bu soufflé bu dégalee boppam ma duma ko daan ko duma ko duma yu metti lu leer laa da duma daan la. waaw na xam ne li ma koy wax mooy lan fii am na lépp. fan fii nii si man am na lép luy moom dina ko xam pare. fii am na lépp fii am na lépp. tax ban. ni moteuru camion laaj ko jaañ jaañ xam na lan mooy moteuru camion. waaw moom dama koy sant rek moom ba mu demee ba lekk sama avance di ko sant di ko ñaanal jàmm ba bis baat jàmm. damay duma damay duma waaw lu waa bis baa nag di nga si teg sa bët dina ma duma bu baax man noo nga daara laare moom ceebu naturel lay lekk te man njaxas laay lekk njaxas bi de am na secret kii maa ko gën a doon taalibe gën koo doon ndongo daara kii maa ko daqaleeg njaxas fuuf pour muy leer damaa lekk si jagaa yi a ah, xaw ma sax lu may doon maa ko daxal lekkoo njaxase ay jagaa nga lekk jaxas ak ay jagaak lu ne lekkoo njaxase déglu ma gën laa doon denge ndogo daara fu tey lekkoo njaxas yaay tey jagaa nga lekk mbër yow yaay tey xoolal lu ma lay wax fii aw ma lu may wootee yow dooma dirise bu arbitre bi soufflé boo dégalee sa bopp ma teg la lu miti. yow dinaa la diriger nag commande télé. force force doog ma laa lay wax nga baax rek. xanaa xamoo ne fii dañoo waroon a maye xool. barki Seydina barki Alxuraan nga xaar. maalop soo ma pee doole da xaar. yaakaaru ndaw ñaa ngi ni Karim doole. soo ma pee doole da nga bu arbitre bi soufflé na nga dégal da ngay xaar man yow. dinaa la duma daan la seetaan naa dañ lay dax ba nga gën géew bi dama gis benn mbër bu ma gën a géew bi sa combat yàgg dañ lay dax ba nga gën géew bi booy kon kan lañ jox kan moo naan nii di xiixat sa booy yi nee nañu ay journaliste yëpp a ngi nii déglul li ma lay wa journaliste yëpp a ngi nii nañ teg làmb ji wax jooju lamb jooju sa taxul andi wuñu fi man ak yow moo ñu fi andi lépp ñu fi andi wax jooju andi wuñu fi de man ak yow moo ñu fi andi man at yow na leer na lekk nga avance da ngay xaar de billaay wallaay da ngay xamal laa lay xamal xamal laa lay xamal. maa la gën a dee ñii seen yoon nekku si affaire bi maak yow la. man ak yow la wax di ma la wax man du ma eh, gëstu doomu aadama bàyyi lii aw ma lu may lijjanti. bu bi suuflee ma du ma la xaar la. tapet nga sa kanamu tapet bi tapet nga. ndeysaan gars yi alxuraanu karim bu aar bi suuflee nga dégal sa bopp ma du la. maa la doon waga fuuf. Eh, eh, dañuy may nag ñu woode lamb ji tey amaana soo leen gisee nii lamb ji nañ ciy woote jaay lamb ji lan mooy lamb ji. promoteur bi. lan moo tax lan moo tax mu tëggal ñu. mobilisation bu garaaw lay. waaw kon deen ñi bàyyi ñun ñu woote. ku nekk woo ay mbokam wooteel waaw man damay woo waa caaro yi yëpp. képp ku dëkk caaro yi. maa lay woo ne la lamb ji nii ngir jëmmi Seydina Muhammad nga ñëw jàpp si. képp ku dëkk jàmm gën. Hmm. ndax man ñaari gox ma seek. dama bokk caaro yi bok jàmm gën. man si frontière bi laa bokk si biir dëkk dëkk bi laa ne man doomu dëkk bi laa di woo ñëpp xam ne tey mën nga maa jàppale rek ñëwal jàppale sa doom làmb ji nii mooy sama làmb ba ma dalee am combat ba tey combat bi mooy sama combat di woo ku luxum fu doomu nekk rek maa leen di woo di woo mafia yëpp ñu ñëw teew di woo waa jàmm gën waa Lespero maa leen woo bu baax a baax a baax si làmb ji nii sam-sam un sam-sam deux sam-sam trois di woo suñu waa dëkk Pout Xoddu Ba maa leen di woo waaw. gaan man la kan man la kan waaw dama lay laaj man la kan dama lay laaj man la kan yow tapet yow xam nga tapet. dama lay maasa kele xam nga tapet. dama lay maasa kele xam nga tapet yow. yow xamoo tapet. xam nga élève bu ñu jàpp xam nga tapet. waaw ba bis ba jàmm su bis ba soo ma jéegoo ray ma. billaay soo ma jeekoo ray ma. amul problème taxawal ne may si àdduna loo yaakaar si àdduna. arme boo yaakaar si àdduna bis ba day ñëw. arme tapet la maa ngi nii. dama ñëw door. mer kii kii door kii ñëw door. tapet la. góor bañ lay door. kan moo xamala la mbër. kii am na lu kii am na lu mu yëg kii am kii lu mu ma naral li ma ko kii lu mu ma kii lu mu ma guuxal li ma guuxal moo ko ëpp fuuf te man du ma ragal man wagalaa te dafa am lu topp ci sama ginnaaw yaakaar ma barke Serigne Touba dafa am lu nekk ci sama ginnaaw lu bari yaakaar ma waaw may woo ñi ma ñi may jàppale ñëpp damaa bëgg a woote gaynde foo may ñu ñu mooy loolu bi dañu dañoo supporters yi ñuy topp yëpp kenn du jën billet dañ leen a bëgg a may billet yi waaw may woo bas daay bi daay gi bas bas bas daay gi bas daay gi maa ngi koy woo bu baax a baax di ko wax ne combat bi combat la dégool borom marché maa ngi koy woo combat bi combat bi combat la waaw di woo Ahmad daaw daaw sama doom lay sama xarit waaw di ko wax ne ko moom xam na man xam naa combat bi combat am la di woo Mbaye Aba yaa ngi dégg woo waa ba ñoom cargo ñoom zac ndooli xam nga woo ñoom alpha ñoom kader sama gars yi ay ñoom jib baabu ab ñu woote bilaay ñii ñuy woo nii ñoonu man damaa bëgg samay supporters kenn du jëm billet damaa bëgg gars yi jëm bolo bi yaa ngi am na yeneen daje yu des am yu des bàyyi ko waxuma la booy lu ñuy wax mana di yow la. man la de eh, man ngay waxal bul wax booy yow yaa ngi tiitee nu mu demee nii boo dóor kuu la te da xaar barki rasulillahi da xaar. waaw ah, ba bis baat jàmm. du ma lay jaajëfal Assane Faye su ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg. Amet Tine su ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg la. da ngaa baax rek. mooy eh. ma reeloo. mbër yaa ngay waxanteel tur. ngay xaar. maa ngi woo ñëpp di woo waa Caaro yëpp. naan leen seen doom a ngi nii di woo suñu waa dëkk pour xoddu ba Alassane Ciss bu xoddu ba maa lay woo bu baax a baax a baax Momar Faye. gars yi noota waay noota mu yeggale. Pam Momar Pam Momar Faye maa lay woo xoddu ba ngeen li tegal fa kaar te yàlla tax gen jàpp si yéen ñëpp di woo ñëpp barki Seydina Mohamed bàyyiwu ma nit jàmm gën cat ba cat fu nit di toog bàyyiwu ma leen ñëw leen sama gars yi nekk si kaw Xaadim Fay Ibu Soose waaw Tafa Njaay yéen ñëpp maa leen woo di woo suñu musala maire bu bees bi Mbay Seen ngir yàlla jëndal ñu billet yi yàlla may ñu ndam si kàttanu borom bi ñu ñëw feete ko kii damay ñaan yàlla ndam si kawam moom Amet yàlla na ma suñu borom may ndam si kawam. jaajëf ndeysaan mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal. ah waa gars yi kañ ngeen bàyyi sama di sant sama papa mbay Guy gii kii kii mooy sama lépp barke Serigne Touba mooy sama papa mooy sama lépp moo may jàppale moo may jox may reer di ma di ma fayal saal di ma yóbbu entraînement.